sama mbokki internet ci maa ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen bégee bu baax bienvenue ci seen site internet www.rewmi.com seen point efficace tey nag loolu dafa ñëw ànd ak yéen pour defar benn mélange senteur ba nga xamante ni nii mën nga ko bàyyi sa néeg mun nga ko bàyyi sa salle alors pour ce mélange on aura besoin d'une orange orange marron zeste d'orange bi la ñu soxla maanaam xollit bi et de clou de girofle maanaam xorom pole on aura besoin de sa ak benn parfum ba nga xamante ne nii moom lañ koy xoojee parfum bi nag day nekk parfum bu neex et le tout mélangé on va mettre ça dans un bocal dans un joli bocal en verre comme ça alors je vous montre comment faire le truc et on revient tout de suite vous avez vu damay xool orange bi parce que li si kaw rek la soxla après ma def ko en petit morceau yoo xam ne. dina xaj ci biir bocal euh, bi voyez bien damay daggate euh, zeste d'orange bi en petits morceaux yi nga xamante ne ni dina mën a dugg ci euh, ci verre bi bocal en verre bi en attendant ñu xooj suñu xaram ci bocal bi outra chave. et puis def naa xarampole bi ci biir verre bi léegi dama siy sotti euh, parfum bi xooj ko voilà et je vais le zeste d'orange tamit un petit morceau tuuti lañ koy def ba nga xamante ne nii dina dugg voilà donc dañ siy dugal yépp su si xajee ça dépendra de ce verre bi tamit ni mu toll alors gis ngeen orange bi ak xorom xoole bi ak parfum bi ce que ça donne donc nii lay mel après mën nga ko jël def ko ci sa benn kii bu euh, rafet pour nga mën ko teg ci sa buffet teg sa parfum tamit à côté de temps en temps bu ngoon nga ibbi bàyyi odeur bi génn tuuti ambiance kiiw néeg bi bu baax a baax a baax xeeñ si néeg bi bu baax a baax wala si saal bi boo paree tamit au fur et à mesure nga gis ne que li bi day dañ mën nga di yokk parfum tamit donc euh, voilà ce que doon tey si seen point truc et astuce seen site internet www.rewmi.com alors essayez leen ko odeur bi neex na te c'est pas du tout cher pas vraiment pas du tout donc ay produits yi nga xamante ne nii mën nañ ko am très facilement nga defar si parfum bu neex pour sa nekk donc euh, je vous donne très bientôt si yeneen astuce ak yeneen produit